Lassin. Bienvenue au restaurant fast-food pâtisserie Lassin. Mouride mbokk yi yéen ko doon laaj andil nañ leen ko ay mbokk taalibe ñoo leen andil seen restaurant bii di la Sainte lépp li nga xam ne soxla ngeen ko suñu restaurant bii di la Sainte am nañu ko bu ngeen bëggee pizza hamburger shawarma ak lépp li nga xam ne soxla ngeen ko muy plat sénégalais ceebu jën mafé mbaxalu salu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko seen restaurant la Sainte am na ko mbokk yi bu leen xaar bu leen waaj ñëw leen ngeen visiter suñu restaurant bii di la Sainte ñoo ngi nekk ci corniche Serigne Modou Bousso Dieng bu ngeen ñëwee foofu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko daañu leen ko jox ñun restaurant La Sainte ngir yeneen i leeral mën ngeen ñoo woo ci numéro bi le 78 132 97 97 78 132 97 97 lépp li nga xam ne nii ñu ngi koy defar mënees koo lim mën ngeen ñoo fekk fii ci Touba Corniche Serigne Modou Bousso Dieng ñun restaurant fast food pâtisserie La Sainte lépp li nga xam ne nii dañ koy def nag dafa méngoog dëkk bu sell bi di Touba ci noonu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak weer Tous les musulmans, qui veut le meilleur pour tous les disciples, qui est Fakhruddin nous l'avons toujours dit, il est la fierté de la religion, il est la fierté du pays, qu'Allah lui accorde une longue vie et une santé de fer et lui réserve les meilleures contreparties ici-bas et dans l'au-delà. Merci de nous avoir suivis. Donc nous reviendrons après, euh, n'est-ce pas, euh, la déclamation des Qassaïd pour revenir sur euh, l'atmosphère, sur l'ambiance, mais également pour que euh, Allah le Très-Haut, n'est-ce pas, hein, euh, nous le convoquons encore pour qu'il accorde une longue vie et une très bonne santé à notre Khalid vénéré. Donc à bientôt et dans euh, quelques minutes après la déclamation des Khazaïs. da nga bi may jàmm Diop na maa sii laa koy baaxal rek بالبيت والمدد أهلا

mbokk la Sainte lépp li nga xam ne soxla ngeen ko suñu restaurant bii di la Sainte ko bu ngeen bëggee pizza hamburger shawarma ak li nga xam ne soxla ngeen ko muy plat sénégalais jën mafé suppu kanja mbaxalu salu lépp li nga xam ne soxla ngeen ko seen restaurant la Sainte am na ko mbokk yi bu leen xaar bu leen waaj ñëw leen ngeen visiter suñu restaurant bii di la Sainte ñoo ngi nekk ci corniche Serigne Modou Bousso Dieng bu ngeen ñëwee foofu nga xam ne soxla ngeen ko leen ko jox ñun restaurant La Sainte ngir yeneen i leeral mën ngeen ñoo woo ci numéro bi le 78 132 97 97 78 132 97 lépp li nga xam ne nii ñu ngi koy defar mënees koo lim mën ngeen ñoo fekk fii ci Touba Corniche Serigne Modou Bousso Dieng ñun restaurant fast food pâtisserie La Sainte lépp li nga xam ne nii dañ koy def nag dafa méngoog dëkk bu sell bi di Touba ci noonu ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak weer